xam moom mooy Serigne. waaw xam nga ñun yàlla daf euh, def ñu féete ci wàllu communication bi di ci liggéey ak Cheikh Abdoulaye Gaynde ma mu dénk ñu lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu presse bi depuis fukki at ak juróom ñu koy yor euh, ñu sant yàlla nag vraiment sant journaliste yi sant presse bi sant patron presse yi sant technicien yi ndax mbir bu ñu la ko dénkee ay at musoo dégg benn yoon màggal jàll ñu wax la ne la journaliste yi wala lee loolu moom sant yàlla la. ba tax na tey defe naa ku ñëw fii da nga gis ne liggéey bi rafet na rafet goo xam ne euh, sant nañ ci yàlla bu baax a baax te boo xoolee it euh, ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal muy presse locale bi nga xam ne gannaaw tabaski dañuy ñëw ci ñun ànd ak ñun liggéey bi ba tey ngeen di doog a ñëw fekk si leen ci defe naa amal nañ leen ngërëm amal nañ leen cant te su ma doon wax ne suñu diggante ak euh, presse bi nu mu demee dama naan leen am nañ ci satisfaction 90 pour cent ci seen ay yar ci seen ay teggin buñ gisee lu ñaa lu ñaaw nëbb ko suñ gisee lu rafet wane ko defe naa liggéey bi ngeen liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba rek moo leen koy man a fay beneen bi ci topp itam mooy euh, lii nga xam ne xew na tey ci jataay bi muy sëñ bi njàngale mi nga xam ne jàngalewaat na ko ngir doomu aadama yi fàttaliku seen bopp delloo seen bopp suñu borom euh, ndax sëñ Mountakha ci loolu rek la nekk ndax boo xoolee bi mu ñëwee lim njëkk a taxawal mooy ab jàngukaay ndax ndaw ñi xañ na ñàkk a jàng gi moo tax li ñuy def nii ci réseaux sociaux yi ñu koy def ba tax ñuy wax lu ñu war a wax la ñuy def lu ñu war a def te ku nekk xam ne Cheikh Mountakha li mu jublu ci loolu mooy bu xale yi jàngee danañ am beneen occupation bu dul nekk ci internet bi saaga wala ñu def leneen moo tax mu taxawal université bi ndax jàppoon nañ ne sëñ Sidi Maxtaar bi mu noppee ci Masaalikul Jinaan liggéeyu murid yi mënatuñu am liggéey bu gën a kawe boobu ci ay milliards sëriñ bi ñëw def daanaka loo xam ne doublé na loolu muy Cheikh Mamadou Mountakha ñu koy ñaanal yàlla nag mu àggale ko ci àggalin woo xam ne nii wu rafet la beneen bi nga xam ne it moo ci gën a topp mooy ni nga xam ne noonu la wanee dëkk bi sëñ mu Mountakha lépp lu fi xew muy ci mbënd mi muy ci liggéey lislaam loxoom a ciy jiitu muy ci mbas mi tey nga xool ne wax nañ ne juróomi million ñëw nañ fi yoo xam ne bokkut ak waa dëkk bi amul fenn fooy jaar ci ñeenti xibla yi jëm si Touba te doo am jafe-jafe dugg biir Touba loolu moo lay wan ne liñ tëjoon lépp sëñ Mountakha ko tijji boo demoon màkk sax dañ ko dañoo tëj maddina tëj jaamu yàlla jafe kenn jaamutul yàlla sëñ bi tijji jàkk yi ñuy jaamu suñ borom bas mi sonal ñu mu ñaan yàlla nen na mbas mi dem ndox mi të mu ñaan yàlla ne na taw bi ñëw mbas mi dem na ndox mi bari na moo tax li xew tubaa ren mus fee xew ci ndox mu bari waaye tam gis nañ jàmbaar gi ñu ci def ba ndox mi ci boppam léegi mi ngi génn dëkk bi kon nag yàlla mi nga xam ne moo mën a sàmm yàlla na sàmm sëñ taxa sàmm it porte parole am sëñ Basiiru nga xam ne ñoo bokk di liggéey fukki at ak juróom te wóor ma ne moom tey mun naa jël bakkanam ak alalam yëpp delloo ko ki nga xam ne nii mooy Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa jëloon lépp jox yonant bi moo tax mu am njaboot goo xam ne mën nañu jël seeni bakkan delloo ko Serigne Touba ñoo ngi sant yàlla di leen